waxee tabaski xel dem ci jënd ak jaay bi ci aaju lu ci mel ni opération tabaski yi fi ci Yaraax magasin xar kanamu daral bi soppeeku lool li ko waral di liggéeyu train express régional bi ñuy amal jural leen ay jafe-jafe. waaw manque espace bi moom posé na problème ci benn côté tamit mooy ak travaux yi taxaw nii ak it maanaam ñi nga xamante ne dañuy ñëw da ngay gis camion bu ñëw bëgg am foo wàccee mais doo mën a am foo wàccee da obligé mën a wàññeeku comme daal ma la wax jafe-jafe yooyu nag moom si ñi mu gën a dal wax dëgg yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy jóge feneen di ñëw di indi ay xar mais bu dee ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ci gox bi mën nañ fañ daan def chaque jour bu ñu ko nit ña xamee bu ñu ko fekkalee foofu sax dañ koy bàyyi même yenn saa yi nga ñëw fekk fi camion bu taxaw da nga naan ko daf fiy obligé jóge parce que ba ngay ñun sunu place la daal waaw du place u Kiyeel waaye miineel guñ ko miin bi ñuy bi ñuy door ba léegi moo tax ñooñu dañuy nangu loolu waaye wax dëgg yàlla jafe place ak espace moom am nañ ko bu baax ak travaux yi ñuy def moom loolu moo am na moom bi mur bi nga gis nii xam nga ne lii nii boo xoolee presque mur bi dem na presque ay 200 mètres yoo xam ne fii yëpp amul sortie benn sortie moom mii bii léegi imagine nit ku wàcc min mi wala 2 heures du matin ak nu mu jegee ak lëndëm sans lumière xoolal toppal tali boo fi ñëwoon guddi ngay xam lu ma la wax ñun lumière bi ñu am fi ñun ñoo koy indi suñu bopp fi guddi gi du am sécurité nee naa fi nekk nii di fi nekk def ay tente nii mooy tax sax au moins nit yi di fi ñemee jaar mais fajar kenn ñàkk lumière bi du yoon ndaxte travaux yi boo ko def soo amul lumière au moins def katu ñaawtee fi nañu xaw a ragal daal. gis-gis yi wute lool ci seen biir ndaxte bu ñenn ñi jàppee ni mur bi ñàkkum karange rek la leen di jural ñi ci des jàpp ni mu ngi leen di yombalal liggéey bi. mur bi baax na ci noonu li mu baaxee ci noonu xanaa fii xat na waaye miir bi baax na parce que dootoo xalaat ginnaaw gi kanam gi rek ngay xalaat pour sa diggante ak tali bi waaye mur bi moom boo xasee toog. wet gii ngay xool fi féetee tali bi waaye dootoo xaal xalaat sa diggante ak miir bi moom wax dëgg yàlla. waa travaux yi moo yokk xataay bi xam na nañu loolu te travaux it mënut ñàkk léegi li nga xam ne nun moom la ñuy ñaan nun li nga xam ne ñooy jaaykatu xar yi ñuy ñu wutal nu benn taral boo xam ne bii même bu ñu ko doon yóbbu croisement jam ñaajo defar nu foofu benn daral boo xam ne parce que daral lii du daral fii route la rek dañ fay yeew daral day am miir am am am ndox am lampe am gardien. su ko defee nit ñi nekk seen liberté ku bëgg a jënd saxaar xar ñëw gaare sa oto jënd ni ko bëggee ki bëgg jaay xaram ñëw jaay ni mu ko bëggee mais xam nga lii nii guddi duñu nelaw guddi duñu nelaw da nga toog ba ak ñu attaqué la mën nañoo yor jaasi mën nañoo yor fetal mën nañoo yor leneen ñoom jaral la leen lu ne nañ jël sa alal dem rek Naar Ndiaye di njiital daral Karasoli marchand bu yaraax di ci indi ay leeral. daaw ak daaw jéeg yëpp eh, presque gars yi ñëw na dinu alami guddi di sàcc suñuy xar ak a yàlla dogal na eh, ndax daaw li ko waraloon matériel bi nga xay dénk ko maam moo nekk nekkoon fii suñu diggante ak raay bi nga xay ay lëndëm lëndëm la euh, samba boy yi di ci dugg bu guddee doole leen gis te it fii amul lumière bu nu mën a jaar pour di gis xar yi ñuy nekk ci biir euh, oto yi màggat yooyu di fi dugg bu ñu nelawee ñu rëcc ko ndànk sàcc ci xar yi at mu ne muy daaw ak daaw jéeg yëpp ñu ngi fiy sàcc suñuy xar mais nag ren alhamdulilah noo ngi sant yàlla ndax yàlla dogal na euh, nembi koo guru lu mel noonu te it man maa jiite daral gi mais kenn egseegul fii ci man wax na ma jël nañu fi sa dara. fii ci Yarax magasin yàgg na doon seen bërëbu liggéeyukaay ba tax na ñoom ñii di yëngu ci wàllum opération tabaski di ñaan nguur gi gën leen jàppale ba seen nekkin gën a mucc ayib.